jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel euh, Sénégo ñi ngi fii ci diwaan bu Bawal ñi ngi fii ci Mbàkke euh, seet si ndaanaan boo xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko laajte fii ci diwaan bu Bawal muy Dady Nguess euh, di koo xam ne ku am jaloore fii ci diwaan bu Bawal xam naa Dady ñu bala nga nuyoo après nga ñu indi ñu tuuti rek ambiance ngir xam la kan mooy Dady Nguess dëgg neexul salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna maa ngi bëgg ñëpp di leen jaajëfal man la Daddy Nguess aka Spirit Gonzales Cak Cak waaw from bon ba maa ngi sama gaay yëpp di leen jaajëfal waa Kabasa Flow cat ba cat ba ma maa ngi sawdaan ñëpp xam di bëggee waa Saf Bongo waaw di leen jaajëfal bu wér di bëggee am Baye Fall Baye Fall Baye Fall Baye Fall maa leen bëggee sama gaay Danny Gueye comme ni ngeen ko waxee rek bienvenue à Mbacké. laataa ñuy dugg ci waxtaan bi euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tey lan nga leen di may ban xam yow ci li ngay dox lan la. loolu yow waaw pour que ma may gars yi dara boo ma maay yëngal ñu defati comme dab parce que bu dee talent bi mu ngi fi bu dee mën-mën bi mi ngi fi bu dee xam-xam mi ngi fi bu dee esprit mi ngi fi te incha allah même ci bongo dañ koy yëngal même ci bool dañ koy yëngal. ak waa saf bongo rek dara du sedd gars yi dawal leen ñu yëgal waay waaw koy wane xam ne nag lépp Mbàkke la rek te Mbàkke lay xewe ay doomu Mbàkke lañu boo gisee ñu jëf lii Mbàkke rek a tax ñu def ko ak fans yi ak ñi nga xam si ñoom it ñu ngi ñuy bégee ngeen def nag acte bu rafet ndax li yombul bàyyi seen i te dagg lépp ñëw seet si ndaanaan bu toll nii kon nag moom it tey lu man lu ne dana ko wane tey waaw kon sama gars kon ñu dem asa ok kenn rek ma jaaxal muy sama bopp xajaa ngi bopp bukki yi mu boot bu foog ni hip hop bi dama ci wopp noonu mooy li ma sol amul lu ma joot liggéeyam ma tax a tax jóg yow lu ma àgg ak li ma jóob soo ma tëkkalee ak ñi mën na ma coob day mel ni méngale ma keeg sa anta jóob polo baa ngi taw na fegi firi parasol yi tolli meññ taxul ba ñu boole xol yi cooli cooli dadi dama war a ngoon li folli tulli fuuyu fëgg faar gi dolli gungu dagg est-ce que jaratin na ñoo di ana mool yi maaro jëni ñig alla boni teen te du para boli caba coli xapp xeli du ko foli suma galañ bu tëggee ci satala baay fi tabala xamal ni pakka la nab bëgg na kaawute labe na rapparam cagala bëgg ñu gëmloo ni wagala si bëggoon naqal yamal ci kuddu ma rof la ci géet am ci tunu ñamal la wala ma rendi la jaale la taaga la yóbbu la margo ba sangal la boole fa ci sere nga dëkk tey di nga tàng ni na gëlëm bëgg nga si te waxatu bar waxu sa gaal dafa këpp na lépp yi ndëpp hip-hop léegi ci ne yëf yi ëpp di sandi bi maay rappeur bi di sëkk ñëpp mu bëgg ndax fu loo bi sam na bu bëri ndaal ba noppi te aju na tekki te dëju fi amoo fi kaddu ni ungu ci ngun du yow da nga dëggu ba noppi di dundul li yàlla ji bëggul ba say buntu tëju waaye ma njaat gi doon sama sukk benn ci benn du benn ci fukk li ma lay junja tàng na ko upp si noo tëm tëmbi tëm yaa asugay nel Modou Lo maay Balla Gaye sooy tëb di dal ni ku dëgg daay dam lay juutal yaa ko taay yaa ko taay di nga baamu ba mu sedd bambar right sa eh foog crew jaabul foog right crew foog ghetto bawul sama li teñ la kese yéen bi ñëwagul naa man leen xali may xam ne ñëwagul ma pare si yéen bu leen na bëtu leen mën di ni na biyu na bëggul yoo la xaw ma yoonu sàkk yéen a boolu usekede si kebatu sadje nga aja sa garde te fagaru ku yor di sëkkal li la nga sébu ku yey yaax ba yey yàq bu ki yéega yàqu yéegatu yaax baaw Yeah, yeah, yeah. What's up, my man? What's up, my man? What's up, my man? What's up, my man? Spirit Gonzalez, okay. voilà mbokk yi kon euh, kii ngeen xam ne moom la ñu àndal léegi di Daddy Nguess euh, kon tey moom la fa séenee ànd ak moom fii ci diwaan bu Mbàkke Bawal ci entretien boo xam ne euh, Sénégal ngeen koy àndal lu am solo li nga xam ne indi nga ko Daddy Nguess mu mel ne tey ji ci cosaan wax njukan kan mooy Daddy ngees fan la bàyyeekoo laata ñuy tàbbi ci waxtaan wi. yaa Daddy ngees benn jeune talent boo xamante ni mi ngi débuté rabam si Mbàkke Bawal. daana ko defantu Dakar daan ci foo en en année 2017 vers 2018 mais 2019 la commencé rap boo gisee la moon tax muy andi Daddy Nguess parce que tur la boo xamante na dafa doon si benn nijaayam boo xamante ne. mi génn àdduna en 2012 mu bëggoon ko trop lépp lu mu doon def ñoom ñaa ñoo koy defandoo fépp fu mu daan jëm danaa ànd ak moom mais yàlla mi dara tawul moo jël bakkanam ancien nem bi juufi la woon mais depuis loolu ñu ne pourquoi pas Daddy Nguess Esprit Gonzales aka Thiak Thiak fu nekk ah, bool rek. Uh-huh. tey lan moo la dugal ci aar bi. bon aar bi bëgg-bëgg moom si dugaloon naa le fait dama daan dégg tey dib day génne son après suba Ngaka Blindé après tonton Ndebe di daw xam nga affaire yi ma neex trop ma gis gars di commentaire léegi pour la suite ci laa essayé benn son après ba mu ko essayé di def benn Fosco Mbacké 2 ma ñëw teg ko affaire yi jàll sama gars yëpp di bëggee di apprécier loolu noonu temps maa benn thème naan invité. léegi après si la affaire yi jaalee noonu gaa ne moom léegi pourquoi pas yow ngay def rap parce que yow bi moo ngi fii ma bind benn son tego tegal gars yi euh, ñu doon def benn benn benn benn benn benn benn fosco benn genre fosco bu ndaw fene boulevard place yi si lañ ko tegee affaire def boom encore ñu ne léegi waa nañ commencé carrière bi commencé teg ay projet waa ba nii affaire mooy loola ah. Mhm. tey ji mën nga dikkalaat ci son yi nga njëkk a génne lan nga ci. dooroon quoi. soo ma njëkk a génne mi ngi tudd Kacoor Boys. Hmm, lu waraloon loolu. Kacoor Boys parce que booy dañoo sérigoon booy dañoo mënoon lu ñuy def ba pare en plus amul lenn lu ñuy ragal si hip hop gaaseen booy tawoon lool ñema lool lu ñuy def en plus ñëpp bëggoon leen. ça compose trois personnes euh, Papi Diaz ak Kenzo ma leen di bëggee en passage ak man. Hmm. tey jamono ji fan nga toll ci aar bi. cassette yi fu mu toll wala son yi nga xam na jot nga ko enregistré loo ñu ci mën a andil. pour l'instant nii ñu ngi pare benn mixtape boo xam ne mi ngi composé 15 titres instant bi dooraguñ nañ seti mu ñu huit mais bientôt incha allah projet dina génn ndax pour l'instant nii taxaw ak yeneen projet yoo xam ne c'est le projet de l'avenir bu mixtape bi jàllee rek incha allah dañu ngi pare benn EP boo xam ne dañ koy sàmb. en plus ñu ngi pare benn benn benn clip ñu ngi ko doon def démb man ak Dablem RBMR la toudour c'est-à-dire rabol moo raw te rabool mooy mos a raw incha allahu rabi ci kaw ci kanaw. fii si diwaan bu bool euh, ku wax lu jëm ci wàllum rab xam ne lu fi xaw a néew doole la lan mooy jafe-jafe bi. ah jafe-jafe bi moom leen la parce que bool am na énorme jeune talent ay jeune talent yu bëree bëri mais gars leen rek a leen xaw a dese. gars yi nekk fii nii quoi dañ dul dëgg virir booy gars yi dañuy seetaan booy ba booy dem léegi si booy demee après ñuy door a tourné bëgg leen a jàppale fekk boobu jaam di day romb alors que am na énormément de talent man dama daan ñëw ci concert may rang ba dem du ma dóor te temps yooyu sax xam nga mooy loolu amaana temps yooyu la talent bi gënoon kii ndax temps yooyu da ngay xoosu pour ñëpp xam la ngay nekk di rayante fii nii mais gars yi dañ lay seetaan ba dem ba nga commencé nekk si tànk léegi bu ko defee ñu lay kóol xam ne di la woo naa la peut-être yi peut-être tax du loolu pour man jeune talent boo gisee bu boo bëggee affaire yi dem dañuy jàppalante suñu biir soutenir booy booy am nañ talent na leen soutenir ñu dem rab bool heure bi waroon na weesu fii mais boo gisee la moo tax demul booba léegi dafa am ñoo xamante ne intérêt personnel moo leen gën a yitteel que intérêt collectif yi doon ne intérêt collectif bi doon ne intérêt personnel bi am na solo maa man kase tey jii su ma demoon di représenter sama bopp mën naa si am du ndam lu rëy mais sama waa dëkk est nga nañ fierté si man tey jii pour man booy def da ngay defee da demee noo xamante ni sa waa dëkk après boo demee foofu da nga fa mën sigi mais pas ngay dem di représenter feneen te nga dëkk fii nga dëkk nga dëkk nga dëkk Mbàkke dem ba Grand Yoff wala nga dem ba Guédiawaye wala nga dem fu xam Parcelles yaa xool di fa représenter pour man loolu naa sul mm-hmm. est-ce que yéen ñi ne fii am na lu leen boole yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci aar bi. si am na lu ñu boole am na lu ñu boole am na lu ñu boole parce que talent talent pour man talent moo ñu boole ah parce que fii Mbacké man featuring moo fi def bëriwul WM laa fi defal featuring Papi Diaz Kenzo mais la moo tax ma def ak ñoom featuring parce que am nañ talent am nañ vision am na fuñ am na fu ñu bëgg yegg mais si tamit am na yeneen talent yoo xamante ne mooy loolu gars yi découvrir ñu en plus tamit ñu ngi waaj benn benn benn benn projet compétition boo xamante ne Baol Baatu Solo tudd yu mel noonu xam nga day boole ay jeunes talent xam nga day tax ñuy def ay collabo ay link parce que di nga xam ne kii moo mën ak kii moo mënul léegi bu ko defee pour bu fekkente ni yéen bool moo leen tax a jug da ngeen bëgg jaay bool da booloo doon benn après da gis ñu bëri di am seen événement sax di ko def nii waaye seraar nga gis ci bawal benn rapport boo xam ne tey jii engagé na verdure ngir tëgg fa dara loolu lan mooy jafe-jafe bi ci yéen. la mooy jafe-jafe parce que amuñ ko leen jàppale fii da gis booy seen doole lañuy demee booy dañ daj lu nekk dañuy dem liggéey dajale koo ci koo ci xam nga ñëw tëgg ci benn projet dañ lay seetaan projet bi doo si am dara da ngay tëgg en souvent fii nii da ngay tëgg perte yu mel noonu moo koy waral parce que amuñ ku leen dooleel amuñ ku leen jàppale mais ku mel ni Dimkon moom mi ngi fi def liggéey bu am solo parce que moom mi ngi rayante loolu moom day ñax génne ñaxam di def lu nekk pour tëgg concert pour gars yi jàllale mooy loolu instant bii nii ñu rek ñoo mën a mën jàppalante suñu biir mais quant à gars bu fekkante ne ñoo ñuy soutenir rek nice mais dañuy seetaan ba affaire yi jàll après ñoom mooy loolu. Mm-hmm. mais ku wax aar bi itam mu wax eh, studio yoo xam ne yu moderne lay doon jamono ji ndax dafa bokk ci yëngatu bi ndax fii ci Bawol am na studio yoo xam ne mën nañu génne comme genre yu mel ne yéen ci wàllum son. si ce am na studio yoo xam ne mën na leen a produire li ngeen soxla. waa am na fi mais mais mais demewul noonu quoi. maa ngi fi ñaari studio boo seetloo ñoo fi nekk muy rek sas ak euh, def machine musique ñaari studio yooyu ñoo fi nekk mais pour que gars yi da gis la moo tax gars yi di dem di dem di dem ba ay Dakar di doore dóore seen son parce que fii nii amaana am na loo xamante ne ñoom des si ñoom am na job bi des na donte ne am na yéene bu ñu sañoon booy tey jii ñu waa Mbacke ñu fay dem mais liggéey bi des na trop liggéey bi des na gars yi ñoo gën a ñoo ñoo war a maye seen bopp doole ñoo war a fere seen studio xam nga defar studio yi pour mu gën a naataange quoi pour booy man sawar joob ak ñoom parce que booy amuñ amuñ lu dul xam xam dafa metti tamit nga liggéey bay bëgg dee ñëw door ci benn studio mu yàq sa son liggéey dafa metti te booy fii nii bu gaa yi di nelaw la ñuy jóg di job mais dara gënul metti nga liggéey sa son ba mu pare nga dem benn studio nga dóoree ko fa xam nga gaa di la saboote gaa yi di la jaay prek fii nag dafa ñaari studio fi nekk du ne benn moo ko si def mais am liggéey sa son ba pare xam mu dem jaale prek mooy loolu. <laughs> mais euh, ni nga waxee ni ci jafe-jafe yi euh, xam nga ne ko wax Mbàkke wax Touba est-ce que loolu amul lu muy joué ci seen aar bi fii. waaw fii moom fii moom dëkk diine la dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la dëkk Sóoru Fall la dëkk jaamu la mais pour man fii gars ñu ngi koy tëral nice ñu ngi tëral nice yàqaluñu dara xama ñu ngi biir Mbacke ñu ngi bool xama ñu ngi tëral affaire yi programme yi mi ngi daw nice ma moo am amuñ problème boobu noonu Kanta Mbacke fii. lan mooy rap mën nga ci dikkalaat ñi lay seetaan maam rap lan la lan la. rab bëgg-bëgg la rek bu nit ñi di def musical la façon de musique la rap bu fekkente ni yow danga koy def nekk rapport da ngay créer di fabriquer mais pas copier loolu mooy rap tey jii nga ñëw teg sa benn instrumental. bu la neexee da ngay créer ses mental bu la neexee man sonnerie téléphone sax dañ ciy rab wala réveil dañ ciy rab. ñu bëri dañuy jàpp ne da ngeen ko yor ni di foofu te dëgg-dëgg li ngeen wax moo am solo mooy yéegi ngeen di yee nii. mooy message yi ñuy jàllale ndax tey jii man le fait que man mën naa ñëw bëgg la wax benn message comme ça ma ne la déw bàyyil nangam nangam nangam nangam mais loolu su ma la ko sama diggante man ak yow la yem mais su ma ko defee son tey jii ku ko dañ ci gis sa bopp dañ ci mën jàngal lu bari hmm. tey jii lan lan mënoo xaar tey jii ci Daddy ngees fii ci diwaan bu Baol. nañ ma xaar big concert incha allahu rabi yaakatul dara yaakatul dara maa ngi pare pour jëlee li moom moom ci bopp gaal seen te bi su ma ko jëlee su ma ñëwee waa Baol xam ni seen doom maa gën a quoi. Euh, mas nga def kilib waaw def naa clip demb rek démb rek def naa benn clip. mi ngi en cours. yaa ngi en Hmm, c'est bon euh, tey jii euh, lan moo tax euh, yeneen concerts yi am Dakar yu mag yi duñ ci faral di gis doom yi bawal yi wala yeneen concours yu mag yi loolu lan la. parce que boo gisee loolu ñun suñ grand yi ñoo liggéeyul loolu grand yi ñu ngi nekkoon seen tànk di dem mais li ma la wax rek interpersonnel bi lañ doon dawal amaana mais bu fekkente ni booy ñu ngi daw de temps en temps ñoom ñu ngi pare pour intérêt collective yi heure waroon na fekk bawal dépassé fii. parce que ay émission émission war nañ ko def fii comme yéen ni ngeen ko defee xam da ngeen gis talent bu nekk fii di dawal moo tax ngeen mu ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw fii tey jii booy ñu ngi ci liggéey boobu am na booy yu bëri fu mu toll nii ñu ngi def ay effet ñu ngi def ay effort pour jaay musique bool boo gisee la moo tax gars yi du ñu woo ci concert mag yi amaana musique bi musique hip hop bool gaal seen moo joragul bool autant pour moo tey dañuy gis euh, euh, mën na ne sax def ci wàll yaan si muy bongo naka ngeen ni mën a ànd ak euh, bongo yéen rappeurs yi jamono bii. loolu dégg-dégg musical la te du ñëpp ko am dégg la rek la fait que gars ñëw teg bongo nga ñëw rap si mooy li ma la wax rek dafa laaj dégg-dégg mbir mi dafa laaj liggéey ñun dañoo tarbiyu hip hop donte ni yaagu ci deux ans lañ ci def 2019 lañ dugg si musique mais boo gisee la moo tax ñuy ñëw di andi ay bongo parce que dañoo bëgg a andi foo xamante ni rap bool gars yi xalaatee wuñ ko foofu ñëw di andi ay nouvelle di créer di am ñun dañuy kàll si bit dañuy kàll si bit nice comme ni ñu waxee olof comme naa la aw yaa olo yaa an daa FC si bi dañuy kàll si bit loolu talent la mbaaxantalu yàlla la dégg-dégg la laaj tamit ndax pour man instrumental boo déggul doo si mën tege dégg-dégg la laaj nga am entente bi xam nga dellu gaay bu baax fi ñuy génne a fi ngay fëlee parce que dafa am entrée am génn comme ni instrumental amee couple refrain intro outro bongo noonu la ko amee tamit te bu ñu sañoon Bengo day gën a yaatu parce que ñu ñoo ko moom. xam nga lii amul ci rap lii ci man nga ko njëkk a déggee nit ñoo teg bongoom di si rab si man la ko gars yi njëkk a déggee te vidéo mi ngi def vol parce que dañoo ñëw pour fabriquer dañoo ñëw pour créer ñëwuñ fi pour copier ñëwuñ fi pour coller dañoo ñëw pour andi lu bees saax te incha allahu rabi gars yi si kanam la ñu comprendre léegi. ñu ngi ñëwoon doole yu bëri. mais ginnaaw euh, bi nga àndeek ak euh, bongo maan yi dafa am ñoo xam ne ci wàllum voix lañuy liggéey euh, mën a xam ñi nga xam ne tey bu leen financé dinañ dem ndax am nañ ci ñoom yaakaar moo tax nga bëgg nga may ñu tuuti rek ci rab loo xam ne sans bongo gars yi mën a dégg voix bi. ruube nga rëboobi rëbb jeraapari rëbb tëri yëli regg di rëbb ñi rawul di rawale ragali rombug rompoy rifisk raaci di rëdd ma rajaxi rokki mi rokki bu rëkkul mi rëkk eh, bele me lekke sa maa ngi ci relesa dala desa li nga bërem bese ba gën di bëri kele du may célébrer defet bu saleme zéro desa génne ma molo desa me ragal du ñeme bete bete waga bu taxi xam di yondu taxi nge solo cere caakini kaala bi do dama tele pare ñu pare bëgg tere bëgg jame ok da ngay ndagaa damay dagaa li ngay tëmbal ci biir tadaa gan lu bagaa na ba xanaa ba ngaa pakaa pakaa cegaa nagab da ngay nanaa ba maa abrakada bara saraari benn garaa ba yàlla maa naxaa du jaay fara yoroo tabaa sa biir sama pataa xutu xataa masa masa gain Spirit Gonzales yow yaay bind wala lan lay bindal maa bind sama jinne yi ñooy bind sama rab yi bind waa ma fi yaaw bind Ah. <laughs> mais li nga dóor di am na solo même voix beeti mi ngi fi kon mbokk yi ñuy door a dab ci Sénégal ñi ngi ànd ak tey Daddy Nguess fii ci diwaan bu Mbàkke Bool di koo xamante ne ku am talaa la xam naa li ñu desee ci ay minutes bariwut euh, tey ji dañu dégg ne fi wow weewu bay laa ko forain ah. euh, muy classante bi nga xam ne yenn saa yi da ngeen koy faral di def yéen ñiy yëngu ci mbir mi est loolu bokku ci leen tardel non bokkuñ suñu talent parce que le fait que da classante day jaay rapport day jaay rapport yow tey jii bu fekkente ni yow am sul level ma su ma la classé yow soo tontoo rek am na foo ma yóbbu amaana su fekkente ni yaa ma sul level ma su ma la classé boo ma tontoo di nga am foo ma yóbbu di nga am tamit mais bu fekkente ne ma maal sul level ma soo ma classé tontu ma la loolu da ngay gën a arrêté parce que dañuy naan kii dafa waaye di quoi le fait que classante si rab la mais mën na naaj mën na set te saaga saaga hip hop classante mën na nice mën na rafet mën na sell te doom ka saagante ay saagante euh, daanaka sax euh, jeexal nañu xam naa rek nga may gaay tuuti ambiance euh, après nga mën nga tàggatoo ñu tëj ba beneen yoon ok aduna du neex ba jant gi ñuul ñaka feeñ ci taw du ma yàq samay nelaw ngir sàcc yu du raw ndo bi na rey seen maam ñu seen ma ñuul gaadu seen daal daw da di ngees du suuf suñu jël kere suuf yi lay féete kaw xas naa yemu sama bopp mi def dootuma yem ko bët du gis xef wax ma nooy def fa say bët gis sa yéen li jota jota ama jot bu dul lekk si leen fi sollu ma nit li duuf si man xajul kenn si yéen batalaa génn ñi potu ndaa ci baaj duñ ma jaay pe rek ndax yore naa si faaj bëri caaj ñàkk lu may waaj di def lu gën a pire aspect yi jàpp bi lekk sa rappeur sama xel la ko tàcc doo bandi bul ma laaj fexe dee ko weer si naaj daaj ci boppam ñëw may dégg man dégguma daaj fils de lal jaamu fii melu maa ni maa leen di faaj ku topp loxoom ci tuñam ne gaa seen maa ci jox naa la ñetteelu baaraam si jaala doole mbaam mi faaw ma mel doome raam mën a wër doome raam yi ma foog doome xaraam ma ta ñoom ñooy doome raam lu rëy si juddu fen si jikko garab bu nit su nekkul woon si nit baykati jikko ku ñuy jiin wareem ba déwén gisuñ ci lenn du lu fenn xon ni teen mu sa ca wéj ni nen noon def mu jikko bref kuy dóoro mën kuy saaga bu lijjanti ranguy seere man damay dóor di saaga kor maa ko dàq jën keere tay ma weere lu tax ñu naa ma dangay weere li ngeen ni tega ma safu ni lëmbal lu faatu were bu bëgg-bëgg yi bokkoon benn buur du beddi bokkam bi ko booy bi bëggul bon ku baax du betti mbokkam bukki bi bëtt buntu bantu bëtt bëttam mboy bëgg mboy si bëy bëy bëgg mboy si boppam gumbatal na leneen lu dul tëbi tenten ngeen ma ngeen di inte kenn du teema doon seen capitaine doo gaynde da ngay fen yaa gën a gaaw usente demoo fenn gem bi doo ci génn góor jigéen bi sëy sigil ma lay seen comme daaw du ren ren itam du déwénoo lii du nen ay follow yu dul jeex ni ma laak taatu nen fis doj du nen du man ak ñu may safu mën yu amul wene leen ñu seeti jikkene mi ama rio chine ma am na ay niggas yoo xam ni fale ma tàpp leen ma kase képp kootu solo ma si ku may jàppale bale ñuy tappale suñu jeexale si laay tàmbale tàqale seeni bopp ak seeni baat ba lakkale gënuma lakkale ndaxte du ma daggale man bitch Spirit Gonzalez cag Dadi Nges xam naa rek ñu jeexal ci benn ponk rek muy euh, image si ni gis yenn saa yi ci rapport yi ñu koy wane te daanaka euh, demewut ni mu war a demee lan ngay wax ñooñu ak rapport nan la war a mel nga mën a tàggatoo waale. waaw rapport moom pour man nekki lu waay di def da koy nurool rapport bu doxee rek war nga xam ne kii rapport la parce que nekkul kase ci rap dafa am isil mooy li ma la wax rek à tout moment da nga le fait que rappeurs yi moom fii nii am na énormément de talent gars yi bu leen jàppalee rek dinañ dem leen rek des mooy si côté teg booy booy bu leen tegee tànk rek dinañ dem incha allahu rabi man nag maa ngi bëggee sama gars yëpp cat ba cat taa ba cat ba kaba sa man aw ma seen fay parce que à tout moment su ma leen soxlaa dañuy bàyyi seen ité yëpp ñëw xam nga loolu yombul ci booy bu ndaw su ma jugee ñoom ñëppay jug maa ngi ñoom suba bu guddi. day nekk man ama seen fay muy góor di jigéen mën ama seen fay waa Kabasa di bëggee Ndiogu Mbaye di bëggee kenn ki la nag champion bi ji bi maa lay bëggee di la sawdaat paw Magic Music jërëjëf mbokk yi jërëjëf Dady ngees moom la ñu àndaloon nekk koo xamante ni xale bu am talent ne fii ci diwaan bu Mbàkke ñu ànd nag moom rekk ci entretien fii ci sénégo xam naa ñu jox leen rek euh, dig daje ci beneen entretien ak beneen daanan fii ci diwaan bu